bi xilaafil faridati ci lu wuute lool su fekkonte ne juleeg farata la su doon juleeg faratala la fa innahoo naka julikat ba bu fàttee fatiha yulxi tilka rakaxata day wacc rakka boobe mu fàttee fatiha dootu ko boole ci julli ga wa yaziidu uxra mu indiwaat beneen rakka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 sëlmal ca ñaareelu rakka ku boole waññi ak yokk nag wa sajjada xabla salaami danga koy lu jiitu sëlmal julli baax masala mu jafe ngook bi xilaafil faridati ci wute lool su fekkonte ne lii mi ngi xewe woon ca julleeg farata su booba fa innahu naka jullikat booba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 sëlmal na fàtte ko te mu yàgg du defaat julli ga te julli dina baax bi xilaafil faridati ci wuute lool bu donne loolu mi ngi xewe ci julleek farata fa innahu naka jullikat ba yuhiduha day baamuwaat julli ga maanaam da koy defaat abadan ba faw mbaa julli du baax yaa ngi jàng téere bu ñuy wax Laxdari mën a jàngale mbiri julli lool te sang ba ñuy wax abdourahman laxdari bind ko yal nañu ko yàlla fayal wasalaamualeykum